c'est pas trop tôt man man c'est cette euh, ordre des magistrats là UMS xaw ma union mhm. des magistrats c'est-à-dire moi je pense que ñoom bon c'est bon ñu génn def sorti boobu noonu mais dans bien des des des cas man je m'attendais aussi à ce que ñu génn parce que euh, ce qui se passe dans ce pays là maa ngi ko doon wax temps yële c'est un précédent dangereux parce que du ñu jël lu toll ni euh, constitu euh, euh, conseil constitutionnel. Mhm. ñu koy këll këlle de cette façon la te loolu noonu aussi ñoom ñi fa nekk. Euh, bah c'est bien fait pour pour eux aussi parce que am na loo xam ne man du ma ko nangu aussi bien les magistrats mën naa ko aussi ak euh, les les les professeurs d'université yoo xam ne yow tu t'es fait avant que régime bi di ñëw. tu t'es fait une réputation dans ton domaine avant que régime bi di ñëw nga nekk juge boo xam ne dañ la respecter avant que régime bi di ñëw wala professeur bu ñu respecté avant que régime bi ñëw nga ñëw on ne sait pas pour quel compromis nga ñëw jël lem tout une carrière yow déjà c'est des gens qui sont déjà à la retraite ñu ñu ñu ñu ñu téye leen fii wala ñoo xam ne ils sont à deux pas de la retraite yow tu t'es fait tout un carri toute une carrière bu brillante ba desu lu dul dem dem retraité yow tu prends tu mets Euh, comme ça tu jettes ça à la poubelle pour pour ban intérêt kenn xamul ban intérêt la maintenant lii dina leen mën a daal parce que tey boo xoolee et puis c'est tellement malhonnête ce qui se passe euh, ñoom euh, ils étaient di di di jéem a parce que boo xoolee situation bi bëri na ay cas yoo xam ne nit ñi duñu comprendre les gens dañ leen gën a féetale ci côté pouvoir bi. Mm-hmm. parce que dañuy ne euh, on dirait que ils ont les mains liées et tout parce que parfois à travers j'ai mais xoola tey y a Bokk Yaakaar qui au lieu que nga ŋaññ. Euh, li nga xam ne moom la parti démocratique di def défendre institution bi nga xam ne moom mooy moi je parle même pas des des sept mais de l' institution défendre ko pour benn parti boo xam ne son son son son leader n'ose même pas venir au Sénégal pour wax ak nit ñi wax lan la ñu bëgg yenn Benno Bokk Yaakaar taxaw ne day day soutenir cette initiative là au détriment de l'institution boo xam ne moom mooy moom moom mooy moom mooy moom mooy kii conseil constitutionnel alors que à moment moment donné ñëpp ñu ngi doon wax euh, une justice boo xam ne dafa nekk euh, si si côté côté nguur xoolal c'est-à-dire que loolu dina leen apprendre ñoom les juges là walla en tout cas tous ce qui sont dans une situation boo xam ne yow da nga am la possibilité de de de d'être indépendant nga fas yéene jël sa loxo ak sa tànk takk joxe ko. lii lay indi parce que tey di nga ñëw gis nga il risque de ne pas avoir beaucoup de soutien. léeg-léeg xanaa ñoom rek entre ñoom leur corporation ñu soutenir leen parce que le peuple bi nga xam ne moom moo leen war a soutenir le peuple da daf leen tourner le dos cette justice là la moitié du peuple dañu gisatuñ ci seen bopp. donc il faut pas s'attendre à ce que ce peuple là ñëw pour dimbali leen on aurait pu compter sur Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk au pouvoir pour mën a défendre les institutions de ce pays là ñoom ñoo nekk di encourager cette initiative et c'est très dommage